ñoo ngi àddoo fii ci daara Hikmatul Yawmi muy internat bi nekk Thiès te ñu tuddee ko Cheikh Mouhamadoul Mourtada cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 ci ñi namm bind seeni doom ndax njàng mi tàmbali na ba ñoo ngi ci sori ñi ci bëgg ay leeral incha allah ci daara ji ngir gone yi mën fee jàng si. ñu woote ci numéro boobu tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mu bokk ca waaram yooyu yi nga xam ne nii xolu jullit bu mas a dugg dana ci fàttali ko yàlla dellu ci ca moom euh, topp ci sunu borom tabaaraka wa taala fàggu ci tiyaabo wattandiku ci ay bakkaar wattandiku ci itam ay àq yi dox sunu digganteeg sunu mboroom mbindeef te loolu mooy gàllankoor yi yi gën a mën a gàllankoore yàlla na ci musal Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne nit day ñetti yii rek lañ koy waxal fii la nekkoon lii la fi def fii lañ ko def loo bari bari daraja ak loo ñàkk-ñàkk daraja loo tedd tedd ak loo torox torox loo bari le bari le ak loo ñàkk-ñàkk loo baax baax baax ak loo bon bon ñett yi mënul ci mucc muy fii la nekkoon lii la fi def fii lañ ko def te kenn ku nekk ci ñun bokk yi benn ko dese muy fii lañ ko def ndax ku nekk ci ñun am na foo ne am loo fay def kon nag la Sëriñ Tuubaa waxoon ci ji naan ne ah yéen ñiy dund dey yéenay sàgganee seenug dund waaye ñi ci bàmmeel yi ñu suul leen ku leen ne woon pëkk-pëkk bañ jóg nga ne leen lu ngeen gën a bëgg duñ la wax tàbbi àjjana duñ la wax yërmande yàlla duñ la wax yàlla jégal ñu waaye lañ lay wax mooy delluwaat àdduna di dund doonte as caa lañ fay dund lu néew néew sax bu fa baatub laa ilaha illallah muhammadu rasulullah xaje ñu wax ko fa ndax bu ñuy dellusiwaatee fii ñu tëdd mu jural mu jural ñu aw yiw kon nag ndegam ñi ci bàmmeelee lañ bëgg mooy dellusi àdduna te mënatula ne ñun ñiy dundandi nañ ko feesal ci eh, sàkku tiyaabo yu ëllëg ak wattandiku bàkkaar ak àq moo tax mu ne waa argabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw suwayaatan faqat li yaxmalu saalihatan tanfaahum in qafalu ci masaalikul jinaan Seydina Ali ibn Abi Talib dafa daan wax ne nit daal xiimaam maanaam darajaam mooy liñ koy nettali ëllëg rek lu baax liñ fa doon def loola rek mooy lam am wa qiimatul mar'i maa qad kaana yuxsinuhu sëriñ Malik Basin si bokkoon ci taalibey sëriñ Tuubaa yi di nit ak nit ku bari woon ay xikma dafa daan wax ne adduna de waaye naa koy neen la ñu ne ko luy loolu mu ne àdduna daal boo fi defee as ndiir rek tàmbali naan diw de xamoon naa ko nangam de amoon naa ko nangam de mënoon naa ko nangam de defoon naa ko nee na àdduna naa koy neen la naa ko naa ko naa ko naa ko loolu nag lañ ci déggee mooy àdduna kat day romb rombin wu gaaw saxukaay ba mooy ëllëg alaaxira addunya mamarrun wal axiratu xiyal maqar loolu la Sëriñ tubaay sunu yaakaar wax te mbokk yi damay wax ne àdduna xewu tas la ba nit ñi jël seeni bagage di fat seeni sées àdduna xewu tas la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku ne xam na ne ba mu fi jógee ak léegi junni at ak ñeenti téeméer ak nangam junni at ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak nangam kon nga xam ne yàgg na te moo na de moom bi mu ñëwee la mu wax aw nitam dafa leen wax ne leen ah man de ci mujj gi lañ ma yónni àdduna bu doon benn bisa dañoo bàyyi ba jant bi xonq bay waaj a sox ba toll ci sox ñu doog maa yónni maanaam li des ci jant bi loolu moo de suñu digganteeg taxawaayu bis penc moo tax mu ne benn bis mu ànd ak saxaaba yi ñu génn jant bi xonq jant di bëgg a so mënu leen mabaasi wa qiyaamu saati hagaza mbokk yi kon àdduna lu jeex la kon nañ wattandiku ah, wattandiku seytaane wattandiku bànneex wattandiku bakkan wattandiku àdduna mu ñuy fàtteloo yàlla wala muy tilimal sunuy jëf te loolu am solo ñoo ngi sant bu baax nag mbokki jullit yi ak mbokki taalib yi bu subaa ñu andiwaat mot lépp la ñu tàmbali tey incha allah ñoo ngi sant ci jàppale gi ñuy jàppale waa daara Hikmatul Yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ba daara ji ñu nekk nga xam ne mooy internat bi ci loolu la taxawee ñoo ngi sant mbokk yëpp rawatina ñu bokk ci jamhiya bi maanaam ci association bi ak bonne volonté yi nga xam ne ni ñoom fuñ dégg dara def fa seen dara ngir ñu am dara